murit ñu ngi lay ziar. ñu ngi lay delloo ziar. waaw tey dama doon laaj ci affaire sëñ Modou Kara yi ñooy dafa jël ñu wéru tëj leen waaw ñi ñu gis ne da doon dóor ñi tamit gis ne dañoo dem fekk fa ay dorog ñu laaj loolu yow la moo ci sa xalaat. waaw sama xalaat moom boo laajee dinaa sawar maa ngi leen nuyuwaat bu baax yéen waa Dakar net di leen jox wàcc waaye di santa sëriñ bi bu baax sëñ Touba mi nga xam ne amuñ lu dul moom loolu nag liñ ciy wax dant du gudd day gàtt ndax bu ñu waxee loolu ñoom wax nañ lu ñu xamul ndax dañ ne police fa dem gis doro est-ce que ñoo dem ñoom gis police boobu bu demoon biir Rebeuss gis doro bu fa demoon gis ko. mais tamit xanaa bu ñu nee ah police moo dem ba foofu gis doro kon loolu noonu lu leer la war a nekk. est-ce que wér na mais dañ ne ña lañ fa téye ay doroge ancien ay toxkati yamba yi ko doon def ay mandikat kan moo leen fa indi sëriñ bi xam nga si Mourou Kara amul jot wër ci mbedd. di fori nit di ko dayale seeni waajur ñoo dem ba amul ñoom yaakaar ñoo xam ne sëriñ bi moom mooy defare kii ñu gisoon tamit ah, Cheikh Yérim Seck na moom doomam du ko jël du ko joxe léegi yow loolu noonu yow ah, ban xalaat nga ci am amu ci xalaat ay ree la ma def Cheikh Yérim man duma ko tontu du roy waay di pourquoi ngeen du roy ah si roy waay la man de jàpp naa ne yow journaliste bi bu ñu la waxee ne dañoo arrêté diw mii di liggéeyee dakaar net ci joxe dafa joxe information boo xam ne jaarul ci yoon dañuy xam ne dafa erreur ci li muy liggéey. nga jàpp ne information boobu jaarul ci yoon. waaye moom liñ ko lan lañ ko téye doomu jàmbur lañ ne da ko yóbbu ci bërëb te dëgg moom kooku lu joxe doomam bi ndax jàpp na ne bu joxee doomam yu def ko di mu def doomi jàmbur. waaw léegi tey ñu la doon laaj. comme Macky Sall léegi moom da ci jël ay matuwaay wala day bàyyi affaire boobu noonu continué yow lan nga ci gis. waaw man foofu moom li ma ci wax man président Macky Sall dama ko yërëm li tax ma yërëm ko mooy daa tombeek moom mu nekk ci nguur gi te ko mag jiitu woon fi nekk fi te loolu fekk leen fi te jéemuñ ci dara dafa mel ni kon su ma waxee day mel ni dañ ko war wax ba loolu am li mu war a def nag leen dong la mooy loo xam ne ni état ko waroon def comme lu ko war mooy jàppale Cheikh Modou ba fexe ba yëf yi continuer ndax na leen leer ne lii bu tasee ñetti daara la ñuy wax dafay ne ëpp na ay téeméeri nit yoo xam ne dañoo accro ci doro bu tasee waxuma la sécurité waaye bu gars yi armée bi lañuy ñuy agressé duñu agressé civil yi